lan moo la gën a neex ci moom ak combat bi démb lan nga ci jàng waaw avant tout maa leen siyaar yéen ñëpp. Mm-hmm. di leen jox seen wàccuwaay. Mm-hmm. julli si bi. Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam. sant yàlla bu baax a baax a baax ci combat bi. di bëggee képp ku ci jàpp. balaa dara xew. képp ku yëkkati sa dërëm def ci. képp ku yëkkati sa ñaan yóbbante. képp koo xamante ni demoon stade mais amoon nga xolu yéene pour Batista am ndam. maa ngi lay sant di la gërëm. parce que dafa nekk rax boo xamante ne. Mhm. jox na ñëpp cër quoi. Mhm. boole na boole ñëpp ci boppam. lu ma am yéene na ko ñëpp. Mhm. duma def lu dul di ko ñaanal. barki alxuraanul karim. billaahi wallaahi taalaahi. roi des arènes bu fekkoon lu ñuy yëkkati nii rek jox ko doomu aadama. ma yëkkati ko jox ko barki yonent yàlla Muhammad. ndeysaan mais yow da ngaa bàyyi bëri. non bàyyi ma bëri. man moo tax nga gëj a bëri Alioune Mbaye Nder nga mujjee bëri. Alioune Mbaye Nder laa mujjee bëri laa. mooy jëlu for boobu nga amoon. waaw ah, taxale boobu rek mooy man damay taxale rek. ba léegi nii gars yi waxaatuñ la dara ba nii nii nag gars yi mais dañ a la. waaw des fois nag xam nga des fois day laaj nga nekk ci ruqu. lijjanti xaw a lijjanti sa bopp tuuti. Hmm. waaw xam nga des fois nga topp làmb topp day hmm. bi day vide. Hmm. foo ko jaadu koñ. mais est-ce que ay mbëri dina la man. ah sa xalaat rek. mbër ñeme na laa daw yow ci sa xalaat rek ne day dóore te man tapet la. yow xam nañ la. waaw est ce que mbër yi dañ lay daw yow. promoteur yi est ce que ñu ngi démarché Batista numéro di la woo di la démarché wala ngay woo promoteur yi. bëgg naa booy man moom man moom nekkul man maay woo promoteur. Hmm? sama ménagère moo ngi dox am na mbër yu ñu ko cité loon. Hmm. mi ci woon. comme yan booy. non ba jarul. am nga ñett booy yoo xam ne jàpp nga ni yéen ñaar mun ngeen laale wala ménagères yi ñu ngi démarrer sa compagnon. boo ma ñett booy day mel ni damaa ragal ñu si kaw. non booy. Malick Niang mi ñuy daw laa bëgg ñu. non Malick Niang moom bàyyi ko tegee ko de. Malick Niang moom tegee ko man du ma delloo avance de. Malick Niang de xam naa ne am na bàyyi de. la bàyyi de de du bàyyi. maa bëggul Malick Niang bàyyi làmb. lu tax dafa ne buñ ko joxul adversaire day bàyyi du loolu la waxoon. kan ko jox. moom waaw. non joxuñu ko kenn. nan ma ko jox balaa moo bàyyi Malick Niang dafa bokk ci làmb daa war a bëre. généralement man Seydina Mouhamed Malick Niang dawul sama yaram sax. yow mu doon neex jox ma ko boobu la doon dàqee. <laughs> barki yonent yàlla ah, Mouhamed maa ngi lay wax nag ngay dee nii nii. kontaan ah Batista kontaan mais tamit kontaan de. léegi bu dul Malick Niang kan nga jàpp ni mën ngeen bëre ñaari mbër. bu dul Malick Niang. Hmm. koo yaakaar ne mën naa bëre moom yow. li ma yaakaar général Malick waaw bàyyi ma nga général Malick. jël avance général. waaw est-ce que doo yow laa wax ñeme ngaa jël avance. gaynde mer la fanaanoo ci fils de Balla la jógee am defet. mu metti ko lool. yow da ngaa dese comprendre. général Malick nga wax président ñeme ngaa jël avance général Malick. yow déggoo li ma la wax bu fi nekkoon nii nii nii si ngeen paas bu ngeen ñibbi avance bi. su ma jotoon nii bu ngeen ñibbi si ngeen di paas. mu ngi lay xool est-ce que mu ngi lay xool général mu ngi lay xool non nekkul ma maay tëkku général Malika de. nee ko bëgg naa ñu bëre man ak yow. non dañoo war a bëre làmb la. maam général dañoo war a bëre làmb la. bu la promoteur xooloon léegi nga. su promoteur woo woon nii bu ngeen ñëbbi si ngeen di paas. promoteur général moom nee mbër yëpp a koy daw. fi mu ma de. léegi dañ ma ci wax ñu dañ may daw. ma xool mbëri ñi daw. man moom kenn daw ma. mais dañ ma xool mbëri nga xam dañ leen di daw. Hmm. jox ma leen. général baax na. déggoo ma la général kese dañ ma xool mbëri nga xam dañ leen di daw ñëpp. laaj nga Malick Niang Malick Niang bàyyi na général nga fi laaj ak ñaar laa laaj. Malick ñaar laa ak général. non boole ci keneen. may ma ci keneen. naa ma dool troisième. ah doole ma troisième. yow bàyyi ah? ay grand ama neex ragal lañ mooy loolu. <laughs> ama neex waaw. gars ñëw. barki sëñ Touba dañ hmm. ay fils de Balla man pour te dire bàyyi fi kenn. fils de Balla moom fi mu dal mu ngi taxaw di xaar. waaye yow moo Gora Sock ñoo waroon bëri la 14 te Gora Sock yóbboogul Grisou. Gora Sock maa ko ci arena tour bi. <laughs> wax nga dëgg bis ba. c'est nag. relateur ba ndeysaan. yàlla mooy maye. sëñ yàlla mooy xool nu ko neex mu tarasé jëfu doomu aadama. mais dañuy sañ koy del sant yàlla rek. te xam ni lépp lu ñëw yàlla la. lu ñu war a jot dañ ciy jot. da ngay naxe nag. non demee cest à bëri bu ñu la gisee sa lewetaay ak Batista ci digg géew loolu ñaar la ñaar yu bokkul la. xam naa li ba la xam nga xam nga juddoo Pikine yaroo Pikine. Hmm. màggee Pikine rek. am na lu bëri lu muy def si yow soit nga génne ko wala nga nëbb ko. ñaata combat nga def arène. 17 combat la am. ñaata victoire. 11. ñaata défaite. 6. kan nga daan. ñi ma ñi ma daan des fois dañ ma koy laaj mais damay réer de su ma la xaw metti mais limal ma ci 4 wala 5 yoo xam ne xam nga ni ñii daan naa ren te seen position ci làmb baax na wala baaxoon na. waaw léegi baa ma jox la Sunjata. Kayta. Sunjata waaw. men. men waaw. yaa ko daan. ko daan. foo ko daanee. Iba Mar. ñëwal ak kan. Euh, Gora Sock. nen. waaw bu parcelle. bu parcelle. yaa ko daan. foo ko daanee woon. Iba Mar. ak kan. Youssou Ndour bu. lébu gi. Youssou Ndour nii nii. waaw. bëri moom. daan ko. maa ko defal Iba Mar. moom sa stade la ñetti ñëpp Iba Mar. ay ca yeggaleel ak kan. <laughs> boo nekkee di lim day day metti mais da bokk ci làmb mais Batista dama la gisatul ci làmb te yow waroo waroo ndax saay ci làmb. waa dëgg la bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax. Hmm. li ma am yàlla làmb joxuma ko. waaw. barki làmb am nga ci cër. am nga ci wàll. loolu dafa leer mais li am dëgg dëgg dëgg. Hmm. làmb joxuma ko. mën naa ni man maa bëgg làmb man parce que lu ne taxawoon na sama kanam tukkeeg lépp lu ne taxawoon na sama kanam barki yonent yàlla Muhammad làmb nga bëgg. mais làmb laa bëgg moo ma téye woon moo ma téye fii ba léegi ñu may wax ak yow. billaay wallaay yi nag war nañ laa jël nga bëri. waaw mais dafa jaadu. dinaa ñëw saal fekk si la wala ma ñëw entraînement. xel nangu ñu déggoo man yow. nga wan gars yi xuuxal leen. tuuti xel nangu na loolu. waaw ju xaw kii. waaw maa lay jaajëfal bu baax rek maa leen jaajëfal bu baax a baax baax tamit. Mm. Mm. Mm. di wax waa li ma li ma leen yàgg di wax rek. loo bokk bul la ci woo. dëgg la Barista numéro 2 seen doom la. Mm-hmm. Barista numéro 2. seen hmm. doom la Pikine la juddoo fi la yoroo fi la màggee. Hmm. képp ku taxaw pour jàppale ko bul xaar mu ñëw si yow parce que xel matul. mënoo hmm. dem ci ñëpp ñëpp ñëpp pour ñu ñëw jàppale la. te ñëpp tamit mënoo dem si yow en personne yëgal leen seen combat. boo ko jotee ci ñenn ñi rek mën nga jàpp ne Barissa a 2 wax na la boppam. man sa numéro 1 maay lancé appel yéen ñëpp. mbër Pikine ñëpp. champion bépp champion bu nekk Pikine. kii jàppee leen comme seen raq. te barki Alxuraanu Karim lépp lu leen réeroon ci làmb lu ci làmb. lépp lu lu ngeen ñàkkoon ci làmb mburu Pikine lu mu sa wandal ci làmb. Hmm. Barissa numéro 2 dina ko récupérer. ndeysaan. incha allahu rabbi. jaajëf. trois jaajëf joxal ma ko maa lay jaajëfal bu baax. di la bàyyi nga tàggu mbokk yi waaw dëgg la waaw. boo nee yow Batista li ma am làmb mayu ma ko dëgg la ndax yow ku la jox addiye su ko lekkee mu rees. Hmm. kii ku ko jox addiye boo diggi ñu naan gàmmoog waa wa gàmmoog dingiraay yow sa maama tax. maam Cheikh Sakkoki Gajaga ak maam Makhtar ak Tidiane Gajaga ak Kabir Gajaga ah Kabir borom yàlla nee na. yow Gajaga loo am rek bu la neexee nga toog fa yor sa xalima yor sa daa nga xool barke yant bi te nag sa yaay day xale maa ko wàccee mu ñëw ci kër gu garaaw gu rëy. buy dem marché du àttan ndab la te mosu yenu ndabul fay. masuñu leen a dégg ci dara ba sunu borom di weddi di weddi ba ñooñu làqu dem ba sàq sa yaay des fi ak joomam ak ngorom ak sa papa. ba jur leen fi yéen ñi say rakka ngi nii toog. Mm-hmm. mu fekk ma fi te nag maami biraan ak sa maam ñoo àndoon dem dingiraay di jàmm di fa gàmmo ba taraase fi ku jóg dem dingiraay te waawoon ngay ba rek teg ci dingiraay te mook Alaaji Maaliga daan ànd wasalaam ngeen baal maaq jërëjëf yaay booy rafet na lool